tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale mbégteem safar sunu mbégteem safar tey ñu dëppale ko xew-xew jamono ndax dafa bari ci bokk yi ñoo xam ne nii lépp lu xew dañuy laaj lan lañ ci xam ak lan moo ci suñu position bari na itam ñoo xam ne ni dañuy faral di déglu ci lépp lu xew lu nekk ndax xam lan lañ ci xalaat ak lan lañ ci wax looloo tax nag du ñu demee suñu xalaat bopp rek waaye. dañ koy boole gëstu teg ko itam ci xam-xam ak ca fañ ko war a gëstoo ba mu leer ñu ba dal sunu xel ñu doo ko wax lañ ci xalaat ak lan moo ji suñu position fan yi gis ngeen benn vidéo buy daw ci internet bi bari lool sax ñu bari di ko paasante ñii di ko istati ñii di ko tasaare ñii di ko def Facebook ak fu nekk di wane ne vidéo Serigne Touba la ak taalibe yi mu doon yëf yoo xam ne ni yëfi caaxaan la eh, caaxaan yu leer naññ la yoo xam ne nii yaakaar naa ne ku xam ci sëriñ bi dara loo doon doon gone boo ko gisee fa saasa sam xel war na ko weddi fa saasa man ba ma gisee rek laa ko daal ba ma ko seetaane laa ko daal di dàq fa saasa waaye nag gannaaw dafa am ñoo xam ne dañuy laaj di ci déglu suñu xalaat loolu moo waral ñu gëstu ci ba gën cee am nag luy firndeel ne lañ jàppoon dara dindiwu ko te mooy lii du Serigne Touba du waa kër Serigne loolu ay caaxaan ñu bari dégg nañ wala ñun li ñu doon doon gone dégg nañ wala fekkee nañ tuuti ci film bu ñu daan wax Bamba mos xam mu amoon ci année soixante-dix yi ak année quatre-vingt yi Sëñ Abdou Lahad radiyallaahu anhu moo ko tere ngir mu doon fooyee sëñ bi ak caaxaane mbiram waaw ay troupe théâtrale ñoo ko daan organiser am kuy suyee rolu sëñ bi am kuy suyee rolu eh, tubaab bi am kuy suyee rolu maam Cheikh Ibrahima Fall ak leneen leneen te ñooñu sax daawuñu gëstu xamuñu woon taarixu sañ bi waaye dañ ko dañ ko daan caaxaane rek ak di ci wut xaalis ci jamono boobu lañ tollooloon ci weccet di ko def ci ab dëkk wala ñuy wut ay sàkket def ko ci mpenc nit ñëpp di ko seetaan si noonu la daan demee lii itam ca loola la bokk rek ndax bu gisee plan film bi nit ñi wanee fii wane nit ñu toog ci kër daal di wanewaat sañ bi muy ñëw ak montage montage bi ci am ak euh, commentaire bi ci am nga xam ne professeur Iba Der Thiam lañ jël ay waxam euh, borom xam-xam yi nga xam seen xam-xam dafa màcc ci wàllu image ak yooyu liñ ci wax nee na moom loolu la ñu wooyee docufiction wane gi ñu wane ne itam ne Mbàkke Kajoor loolu itam xel da koy daal di dàq ndax Kajoor sëñ bi ba fa nekkee defe naa mbiram siiwaguwul siiwagu goo xam ne ne jar na euh, tubaab bi wala am lanteegut ak moom bay déployer ay moyens di déplacé wu di dem Mbàkke Kajoor di ko filma kon loolu ba tey xel da ko nanguwut yenn wut maana ndax sëñ bi yaakaar naa bi muy am lanteeg tubaab bi booba jóge na Mbàkke Kajoor ba jóge Mbàkke Bawol ba jóge Daaru Salaam ba ñëw Touba ba dem Mbàkke Bari kon loolu xel da ko nangu ku jàng taarixu sëñ bi ak histoire am nga xam ne loolu xel nanguwu ko tekkiwul ne sëñ bi amul film wala amul photo déedéet ndax tubaab yi kuñ jëflanteel ñaare rawatina ku mel ni sëñ Touba ni mu doonee ko spécial ci ñoom faaw ñu am ay archive waaye nag lu mu ci man di doon day doon loo xam ne luñ lu ñu gëstu lay doon ba xel nangu ko ba mu wóor na lii sëriñ bi lay war a doon waaye film caaxaan bii daal moom yaakaar naa ne ku ko xool rek fa saasa war ngaa mën a sa xel war naa war na ko mën a dàq ndax sëriñ Tuubaa dafa ñàkkoon jot lool ba ëpp aw nitam ñàkk jot lool ba ëpp rawatina ñi mu doon ñi mu njëkk a tër bi ay Mbàkke Kajoor ba Tuubaa te taluñu woon dara niñ ko wane itam mu doon mbooloo moo xam ne ni mbooloo mu góor ak mu jigéen mu jaxasoo loolu itam kon xam na ne jataayu Sëñ Tuubaa góor a jigéen daawuñ fa daawuñ fa jaxasoo loolu itam xel da daal dàq bi itam daawu toogee nii toogee yi ko yàkkamte la daan toog daawu toogee nii fu mu mos a ñëwit la mu fa njëkk def mooy salaatul xudum muy julli waaw kon daal kii ñu wane nii eh, ku koy ku ci xool sëñ bi defe naa sa xam-xam ci sëriñ bi ak ci yoonu murid ak ci taarix ak ci histoire euh, yoon wi defe naa soriwut war nga cee góorgóorluwaat te gëstuwaat yi kon nag ñun tamit ñoo ngi sant ñi nga xam ne nii wax dëgg yàlla euh, laabiire nañ ñu jëlee ci ñoom lu bari ci liñ gëstu te ñu mën ñu mën caa tudd jàmbaar ku ñuy wax sëñ Abdul Aziz Mbacke Majalis ñëpp xam taxawaayam ci lislaam taxawaayam ci liggéeyal sëñ Tuubaa li sëriñ si def lépp nag mu koy def. di bàyyeeka jàngale waaye teewut mu doon koo xam ne tamit nouvelle technologie ak internet ku ci yàgg la di ci liggéeyal Sëñ Tuubaa liggéey bu fés a fés mook waa majaalis gépp ñi ma àndal ak yeneen i kilifa itam yoo xam ne nii jëlee nañ ci ñoom gëstu yoo xam ne nii day wane ne film bi film caaxaan la waaye laaleewut ak Sëriñ tubaa te it saa bu màggal jubee ñaare danañ indi dara loo xam ne dañ ci jaxase xele murid ji xay na ñu koy def ñoo xam luñ ci jublu waaye film bi daal maa ngi ñaan eh, kenn bañ cee tardé xikma bi it ñu tasaare ko ba fa fa film bi àgg rek mu àgg fa teñtal màggal gi daal màggal gi mooy ndigalul sëñ Tuubaa Cheikh Mor Muntaxa soññ nañu ci kon lépp luy yeewenal màggal gi loolu ci lañ war a concentré wu waaye waruñu concentré wu ci eh, film yi caaxaan yi nga xam ne ay Bamba mos xam la woon yoo xam ne dañ dañ ci daan fo di ci di ci di ci foye yoon weeg sëñ bi ba sëñ Abdou Lahad radiyallaahu anhu tere ko kon ñoo ngi jaajëfal mbokk yëpp di sant mbokki jullit ak mbokki taalibe yi ci jàppale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 in uridu illa al islaaha mastataxtama tawfiqe illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ausu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim